bëri ndaxte lu ñu fi doon wax rek wax nañ ko ba pare waxit la ndax li may wax nii wax naa la ko en salle de commission te defe naa dégg nga ma mooy euh, monsieur le ministre réew dañu koy jàmmoo te yaakaar naa ni euh, ci wàllu xeet suñu ko nattee ku war a mën a digal président Macky Sall mu def nga ndax bu ma nee woon fogole séeréer mais sim naa noon dina am ñu ma tontu mais su ma waxee fii ni bandiraaɓe sehlaaɓe mbede salminoon am na ñu ma war a tontu waaye su ma nee asalaamaaleykum ma mbokki Lebu yi am na ñu ma war a tontu donc yaakaar naa ni euh, fa dëgg yàlla war nga mën a diggal kilifa réew mi mu def mooy loi bi na ma la ko waxee woon bu ñu jàllee fii ci Mali lu mu tuuti tuuti danañu xam lan mooy terrorisme bu ñu demee fële ca France danañu xam lan mooy terroriste donc man li ma waxoon keroog loolu laay wax tey l'appellation terrorisme monsieur le ministre est-ce que duñ ko seetaat parce que li waral sama collègue député yenn yi di wax di tiit naan sama doom daf ma woo fajar ne ma bul dem loolu rek moo ko indi te loolu nag sosuñu ko fenuñu ko àbbuñu ko ci këyit gi la nekk ñu wax ko monsieur le ministre kenn sosolu la kenn fenalu la luñ la waxal yaa ko bind terroriste rek lañ wax te ñun duñu ay terroriste ndax monsieur le ministre euh, réew mi su fi terroriste duggoon lu mu tuuti tuuti nga sentir ko mais appellation yi dafa commencer changer de votre magistère force occulte la yenn saa yi yenn saa yi c'est des lutteurs qui n'ont pas de combat ñoom ñooy manifester wu le langage daal est tellement a tellement changé ba dafa xaw a tiitalaate moo taxoon ma ne nañu waxtaane réew mi proposer beneen loi proposer beneen waxtaan entre l'opposition parlementaire mais ubbi ko aussi ci opposition bi nekk ci dëkk bi ndax côté euh, yu bari la pour mën a trouver yeneen appellation monsieur le ministre c'est vrai terroriste kenn bugg ko ci benn dëkk man de bugguma ko te su ma wóoroon ne day gete le Sénégal lu mu tuuti tuuti man fii laay toog am honnêteté bu toll ni yëkkati sama loxo ni la jàppale naa la ci loi mais monsieur le ministre terroriste bi fi ñu ko accentuer moo bon ca clavier ba la monsieur le ministre ca clavier ba la te fii ci réew mi ay king clavier ñoo fi nekk parce que kenn mënuñoo teree bind ci suñu clavier yi parce que monsieur le président de la république dafa génn daan ne bu ñu waxee ngeen nekk ci ginnaaw seen clavier yi di kàcci kàcci ñu teg ci 10 jour mu woote procédure d'urgence mettre ces menaces en exécution pour ñun bu ñu bindatee ci ci internet bi suñu soxla nga seet ñu nga ñu nga wooñu monsieur le ministre seetaatal loolu parce que bu fekkente ne on doit rappeler tout simplement tey le 23 juin monsieur le ministre buñ ko rappeler waatee xanaa xaalis bi financé woon la le 23 juin loolu du xaalis terroriste parce que Ablaye Wade moo fi nekkoon financé leen yéen ba ngeen jàll ñëw magistrature suprême ngeen ne kenn du financé keneen par force lañ fi financé waate ay waxtaan benn beneen bi monsieur le ministre dafa am sama collègue député bu ñëw indi waa e xanaa yéen règle UEMOA tey ngeen ko bëgg a adapté bay indi ay UEMOA waa léegi le CEDEAO woo wax sur les droits de Karim Wade yow monsieur le ministre nag maa ngi la koy ñaan comme respecté nga bi ca CEDEA te UEMOA la jóge na nga respecté bu Karim Wade bi parce que jox nañ la bu yàgg la résolution de de de la CEDEAO ni la Karim Wade gagne tous les procès internationaux nga lànk ni doo ko appliqué les teg les textes de la CEDEAO yow appliqué ko rek nga seet parce que boo ko appliqué xam nga ni ce qui se trame à l'horizon une probable troisième candidature du président Bour Fouta du fi amee ci réew mi parce que Karim Wade va battre à place couture loolu rek ngeen xam léegi nag monsieur le président léegi nag monsieur le ministre nag doxalal doxalal rek doxalal yoon rek respecter les règles les principes ah de la de la résolution de CEDEAO monsieur le monsieur le président man jàpp naa ni mag nga mag mu baax nga te xam naa ni li nga wax ni moom ngay appliquer moom ngay appliquer damay ñaan ngeen delluwaat ci biir néeg yi waxtaanaat woote ñu bokk ci King Diarra. merci merci cher collègue merci la parole est à notre collègue Aminata